sant leen gërëm leen mbokk yi ci seen ànd ak ñun ci rajo Rewmi FM comme nuñ ko baaxoo di defee dimanche ji jot rek fii ci euh, rajo Rewmi FM seen émission gox bi tey di dalal ki nga xam ni moom moo di Lalla Aïcha bi nekk point focalu élu yi ca au conseil des collectivité territorial ñu am mbégte lool ak bànneex di ko dalal fii ci rajo Rewmi FM Lalla Aïcha ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci émission gox bi. Mbemba mhm. maa ngi lay nuyu mhm. di nuyu si auditeur mhm. di nuyu waa Sénégal di nuyu képp koo xam ne jamono bi yaa ngi toog di safoo Rewmi FM sur la 97 point 5 ñu fas yéene jàkkaarloo waxtaan nekk ci rajo réew mi waxtaan ci li ci réew mi wàcc si li ci gox yi kon am na solo <laughs> donc dañ koy dooree rek ak euh, mbas bi nga xam ne moom moo sonal àdduna wërngal këpp rawatina ci nim réew fii tey Sénégal alors tey yow nga nekk point focalu élu yi tey d'abord balaa ñuy xuus ci waxtaan bi commune ba nga dëkk di HLM sensibilisation bi nan ngeen ci jubloo waaw euh, ba balaa may ñëw si euh, tontu bi. Mhm. damay def tout rectificatif rek. parce que mhm. da nga ni point focal des élus au mhm. niveau du haut conseil. non je suis point focal des élus locaux. en tant que fonctionnaire. Mhm. au niveau du ministère de collectivités territoriales. am nekk. Mhm. membre du haut conseil des collectivités territoriales. Mhm. di la troisième wala quatrième institution chambre euh, boo xam ne fii Sénégal. Euh, nga xam ne dafa regroupé. Euh, la, plus, la plupart, ce sont mhm. des, des, des, des élus. Mhm. des maires mhm. conseil départemental. loolu la donc ça ça veut fa ma nekk ministère. ak fële tam c' est une continuité. bien sûr mais par rapport ak feebar bi. déjà li may njëkk def mooy massawu. képp koo xam ne rek yaa ngi doomu aadama. parce que phénomène la boo xam ni. ñu ngi koy dund tey. mu nekk lu kéemaane. Euh, mu jublu si mbirum wér-gu-yaram. te xam ni que fa mu jógee. Mhm. nekk si réew yoo xam ni. Mhm. ñoo ñu ëpp euh, euh, doole. Mhm. ëpp ñu taxawaay. ëpp ñu jumtukaay. te mu ëpp leen loxo. kon bu ñëwee si réew. boo xam ni dañ naan pays en voie de développement. lu mel ni bu amee ku ne jaaxle woo ba yi am. ñuy xool ni def naa ne tey bu nu xoolee le point du jour tey ji on était à trois cent soixante-sept cas. Euh, aujourd'hui mhm. bi ñu defee les tests mhm. virologiques on mhm. avait 17 cas bien sûr yi nekk des cas contacts deux yi nekk cas communautaire mu nekk loo xam ne doy waax la alors mu nekk fee euh, feebar boo xam ne dafa laaj euh, taxawaayu ñëpp parce que dafa ñëw si àdduna bi xoolul ki am xoolul ki mën xoolul ki mënul xoolul ki mag xooli ki ndaw xoolu góor xoolu jigéen mhm. donc loolu li ma koy waxee rek lépp ñëpp la mhm. te dama naan lépp ñëpp mhm. lu ne ku ne nga ca moo tax actuellement ni ñun en tant que responsable nekk fii si HLM benn taxawaay rek lañ ci am parce que dama naan boo nee responsable politique la da nga engagé wu engagé wu politiquement mais engagé wu socialement parce que li ñu njëriñ mooy la politique c'est d'abord social parce que c'est une activité qui se déroule au niveau mm-hmm. des territoires mm-hmm. au niveau de la société mm-hmm. si ko goxaan yi mm-hmm. donc loolu kon ni mënu ko dissocier ak des faits sociaux c'est un fait social il faut que ñu taxaw ci taxawaay ci taxawaay boo xam ne c'est c'est c'est déjà humanitaire humanitaire mooy lan mooy dafa laaj yërmande dafa laaj solidarité dafa laaj vraiment coopération ak collaboration ndax ñun ñi nekk si gox yi rek du ñu ñooy responsable yi rek ñeneen ñi bokk non non ñun suñu xel kese bu doxoon mhm. bu doyoon mhm. kon du ñuy dem di jiite nit fa fa ñu fa toog mhm. duñ fa nekk parce que fa ñu dem lañ faa dem dafa nekk chemin boo xam ne dañ fa ànd ak ay nit kon bu mbir amee dañ si boole ñëpp jël xelu ñëpp jël xalaatu ñëpp jël tam doole ñëpp pour mën a venir à bout mel na ni kon yéen a ngi dugg ci gox yeeg goxaan yi di wax ak askan wi ci ni ni mel ndax cas communautaire yi nuy wax mi ngay gën di euh, bëri euh, fanweer la woon ak lu topp léegi yéen ci seen wàll ndax mi ngi askan wi ñu ngi dégg li ni mel. waaw parce que man li ma le bi affaire problème bi commencé. Mhm. ba ma xam ne que c'était devenu parce que fu mu nekk nii ba ak actuellement may wax yow nii. Mhm. sérieux bi ci war. Mhm. ak Sénégal yi joxaguñ ko ko. maanaam dayo bi daal. dayo bi c'est-à-dire que grave gra grawaayu feebar bi. Mhm. Mhm. voilà li ñu naan l'heure est grave. Mhm. ñoom xamuñu à à quel point. ah jot nañu xam ko. xamuñu à quel point ba nga xam ni man. Euh, li ngay wax ni sensibilisation def naa bi ma ko defee léegi. war na toll ci weer lu topp. man si laa jóg man. jël la ma am. as ma jënd sama ay gel. gel yi def naa distribution bi maa ko commencé premier juin ak sa la yem mais je l'ai fait au de une semaine. yoo xam ne maa ngi dugg si goxaan HLM 1 ba HLM 6. premier jour man maa demoon ànd ak les jeunes des HLM. Mhm. ànd ak ñoom. ñu mhm. def ko sama fief d' abord. Mhm. ba bu ñu paree loolu. ma xam ne ko dañu war a wàññi regroupement bi waruñu bari. bien si laa jóg ànd ak euh, bàjjenu gox yi. mu ñu may nuy au passage. Euh, ma nekk ak ñoom si si HLM. te présidente bàjjenu gox HLM nekk ak ma nekk foofu. ak man sama côté muy Adja Koura Sow. ma di ko nuyu ak ñëpp nekk si gannaawam. ànd ak moom.

expliqué leen affaire geste barrière yooyu yëpp ñu mhm. expliqué mhm. donc dox nañu mhm. def nañu dimbale nañ leen mais aussi tamit bool nañ sensibilisation on a fait d'une pierre deux coups et ça a été une euh, comme askan wi dégguñ léegi nan lañ war a def bon dégg ndax euh, affaire bi léegi kenn dootul waxati am na de lu am la de waa dégg nañu fi nekk nii mais dafa yéex parce que tey jii ku mel ni euh, Italie ku mel ni États-Unis vraiment seen du dispositif sanitaire mhm. moo leen yóbbee fii mhm. mais yéex a conscient mhm. ci mbir gi moo leen indi fii tey instant bi nii Sénégal xam nañu mais mm-hmm. bi ñuy xam fekk na li fi naan woy na muus waaw fi nekk nii li ci li ci des rek mooy mm-hmm. jéem a wóor nomb mm-hmm. li nga xam ne moo fi nekk balaa mu ñuy wóor nomb a wóor nomb nga xam ne jor nañ ko pare ñu téye ñu ngi si si confinement bi parce que bu nee tant de cas ñu am à côté am na ñoo xam ne dañ leen confiné bien sûr et ñoo ñuy confiné c'est pas parce qu'ils sont confinés qu'ils sont contaminés dañ leen fay teg di leen jël par G saytu leen saytu leen xool ndax mi ngi seen yaram moo tax chaque jour ministère de la santé di génn à dix heures def le point wax lim bi ñu jël mhm. ñii ñoo ci am cas mhm. contact ñii ñoo ci négatif ñii ñoo ci positif mhm. ñii ñooy cas contact ñii ñooy cas communautaire alhamdulilah ba nga xam ne déggatuñu cas importé parce que bi ñu dëjee frontière ak léegi importé un donc effet yaa ngi commencé tombé donc lu ci reste c'est au sein de, du, du, territoire national. Mmh. à nous mmh. de, de, de, gérer en quoi faisant mmh. de respecter mmh. les mesures barrières, mmh. de respecter les gestes barrières. xool suñu bopp xam ne ko ni toog benn weer boo xam ni la ñuy serrer la ceinture. perdre mmh. lépp moo gën muy durer. am na ñu ne HLM euh, ñu ngi multiplier sensibilisation bi ba cas communautaire yi ñuy dégg ci yenn communes yi. amaguma fi amaguma fa amaguma fa euh, euh, touchons du bois mhm. euh, ñaanuñu yàlla mu am fa ndax dafa jàpp ni sensibilisation mi ngi dugg ci askan wi yéen a ngi collaborer ak médecin chef yi lan mooy secret bi wala chaque jour yéen a ngi ñaax rek askan wi ba tey waa xam nga ñaax bi moom du du doy ba pare meilleure sécurité bi mooy mhm. nga jàpp ni rek mhm. tant que man saytu ma ko rek je peux être un bien sûr

ne nañ jël euh, indi la rek teg teg la fii nga daal di wax askan wi dëgg la dëgg la mhm. dëgg la dëgg la am na solo mhm. mais loolu daal laa leen di xelal mhm. vraiment ñu gën a farlu si recommandation yi parce que ministre de la santé muy moom mu jiital cabinet muy directrice de la santé maanaam xew ñoom ñëpp ku si génn boo defee le point à la fin tu toujours hmm? si si appel bi ngay def ñaax nit ñi askan bi ni leen lañ leen fàttal ku leen dellu parce que mbir parce que tey jii fa mu jógee. li may wax fa mu soqeeku. Mhm. ñooñu ñoo gënoon gaawle. mais dañu respecté mbir bi. Mhm. donc def vraiment respecté li nga xam ne autorité parce que bu Macky euh, mhm. mooy autorité bi moom mooy magistrature suprême c' est vrai. bu toogee tey jii tey ni diggante fii ak kees waroo faa génn te autorisation moo ko sañ def. mais du du question démonstration de force. dafa fekk nit loo xam ne dafa baax si ñun. parce que nag après il faut penser à l' après Covid. ñu ngi gérer loo calculer xamuñu kañ lay jeex. mais après sera encore pire. Mhm. parce que après y aura des des des des des conséquences sur le plan économique. Mhm. sur le plan social sur le plan professionnel. Mhm. donc loolu nañ ko gérer léegi. mënul ñàkk daal. ok léegi ñu xuus ci waxtaan bi parce que couvre-feu bi 6 heures la woon euh, ba 20 heures léegi nag njiitu réew mi dégg nañ ko ci France 24 ak RFI nee na bu laajee sax li nga xam ne moom moo jëm 7 heures ba. vingt heures dana ko def mais loolu yëpp est-ce que ñu ngi xalaat itam ak koor gi di ñëw du indi itam gàllankoor ci askan wi wala ñoom ñoo war a adapté situation bi ni mel. waa déjà man dama ne loolu c'est juste rek une une une supposition. Mhm. mais yeggaguñ ci. yeggaguñ ci waaw daf ni bu fekkee ni. Mhm. bu fekkee ne ak bi ñuy bu ñuy dund. Mhm. dafa jar confinement total. bu ñu amee lay mooy jar na ko. parce que balaa nga naan am ne fa. xam nga yàgg naa est-ce que mën nañ ko def. ak gi. mais xam nga balaa ngaa koor da nga am fa wér. bien sûr alors que mesures yooyu ñu teg c'est pour que nous puissions préserver notre santé. loolu moo tax affaire bi li mu laaj. nañ ko ko donc boobu eh, deful effet nañ ko appliquer bu ko jaree. waaw nañ ko appliquer bu ko jaree mais yegguñu fa nañ ñaan mhm. yàlla ba ñu fa yegg. Mhm. moo gën a am so kon kon yokku sensibilisation ci askan wi sensibilisation si lañ nekk démb mhm. rek maa ngi taxaw bàjjenu gox yi. ma laaj leen ñu ne ñoom duñ si jóg. déjà bàjjenu gox mooy ñëw nit ñoo xam ne. heure bu ñu xëyee ñu ngi si askan bi ak imaam yeeg président AIC yi ah. non yëpp jàppal OCB boo ne OCB jeex na les organisations communautaires de base ñoom ñi xam ne ñoom ñoo yore couche bi ñoo nekk si si société bi mhm. bàyyi ma président AIC yi mhm. bàyyi ma imaam yi mhm. bàyyi ma délégué de quartier yi bàyyi ma les jeunes porteurs de bàyyi ma kenn lépp li ma la wax léegi rek lépp ñëpp la

ab euh, yow tey naka nga gisee initiative njiitu réew mi d'abord tey ñu jox ñenn ñi ed yi ngir ñu mën a su ma ko mënee waxee noonu toog seen kër ci éviter jàngoro bi. man dama jàpp ni aide yi. Mhm. Euh, dañ ko jox leen ko pour ñu toog seen kër. est-ce que aide yooyu sa à dire dafa nekk loo xam ne lu permanent la. par exemple bu fekkee dañu wax a confiner pendant un mois mm-hmm. wala deux mois est-ce que le président a est à même ou bien mm-hmm. sera à même tundal mm-hmm. Sénégalais bu nekk pendant un mois xam nga mënul nekk donc asaka euh, la parce que bu ne nit ki toogal sa kër tam nga ne ma mënuma toog sama kër parce que aw ma lu ma lekk c'est c'est vrai c'est une réalité parce que am na ñoo xam ne boo génnul mënoo dem parce que même ñi am salaire sax mooy loolu ñoo xam dañuy dund jour au jour au jour le jour donc nag loolu euh, je me dis que ni c'est son parce que aide mooy ki ngay jàppale. parce que bi mm. xam nit nekk. c'est juste un appui. Mm-hmm. appui boobu nag. Mm-hmm. dafay fekk parce que tamit ki ngay dimbale. Mm-hmm. da ci fekk loxol borom. ok bu la fekkoon ne boo xëy si hôtel vraiment doo la noo liggéey amoo benn source de tamit. dafay gën a métti rek. bien sûr mais au moins nañu saluer le geste. que ni xalaat na. jël benn benn benn initiative boo xam ne. dina jël tant de milliards. dugal ko ci askan bi dool leen ci. te loolu tamit dama naan. man pour man amul amul ngóore parce que mhm. c'est c'est-à-dire que c'est c'est normal c'est normal mhm. mhm. parce que lu lépp lu mu fa jël rek ñun Sénégal contribuable la du dëgg mhm. suñuy kii ngi ci suñuy impôt mi ngi ci mhm. suñuy suñuy contribuable mi lépp suñ suñu lépp la suñu dërëm daal mi ngi dërëm mi ngi ci mhm. parce que moom fa mu toog sax li naan sénégalais moo koy fay suñuy contribution moo koy fay te yéen sax au ak comme ñëpp ak ñëpp waaw comme ñëpp donc yéen journaliste tam dugal ngeen ci bien sûr waaw même bu dee benn cent franc la dugal ngeen ci dugal ngeen seen bi un million bien sûr mais loolu c'est à saluer loolu moo lay won élan solidaire boobu pour man. Mhm. dañ ko war a régler au plus fi teg ko. Mhm. xam nga lu tax. Mhm. c'est pas le plus important. c'est pas le plus important. parce que tey jii ku ñu fekk fii ñuy xëccoo naan ceeb bi. kii moo ko war a jël ak. kee moo ko war a joxe kii moo ko war a jël kee moo ko war a jënd. dafay mel ni feebar bi ñoratuñu. te mbir mi feebar bi la. xam nga la jaay def ne lu yëngu dala li ko yëngal mu feebar bi la. mais ceeb bi est ceeb bi moo yëngatu itam. indi bruit voilà xam nga la la Sénégal moo bëgg détail. te pour man par rapport à la réalité du moment. Mhm. loolu détail la. taluñu ko. non waruñu ko tal. nañu xool ki sa ki toog fa tëdd hôpital mhm. di noyyi mhm. wala ñu koy def assistance respiratoire est-ce que mhm. kooku tey boo ko waxoon tey am sa mille tonnes ak nga jël sa vidal man moo koy gënal mu jotat bakkan moo koy gënal donc nañu jël respect te ñooñu nga xam ne ñu ngi tëdd foofu te jommul kenn kon nañu bàyyi loolu te wax ci wax mbir bi vraiment feebar bu jóge fi xam nga bu ñëpp amee tan ñëpp am wér ku nekk yegg sa kër est-ce dimbali kenn ah dina a a itam jël na ndogal ñaax ki nga xam ni moo di ministre collectivité territoriale ak finance budget ñu facilité collectivité territoriale yi li nga xam ne moo jëm ci procédure administrative yeeg budgétaire ci li nga xam ne moom moo jëm ci wàllum allocation complementaire secours yi ndax yow mën nga ñu faram fàcceel ci li ni mel lan la wundu li ni mel ndogal bi mu jël waaw loolu li muy wunu rek mooy que ni mm-hmm. xam nga boo nekk collectivité territoriale rek mm-hmm. yaa ngi dem si li nga xam ne mooy njeexitalu mm-hmm. euh, programme le président de la république parce que je dis que le président de la république c'est autorité qui au sommet bien sûr muy dérouler sa politique mais politique am du am sens du am impact tant ñu si suuf jàppale ñu ko parce que man image laa lay jox rek man bu ñuy wax politique man politique au sommet gëwuma ko mm. parce que man pour man politique c'est à la du dëgg mm-hmm. donc loolu muy déroulé mm-hmm. ñi koy jàppale à la base si c'est vrai il y a le commandement territorial à côté mm-hmm. mais le plus important vraiment maillon bi nga xam ne moo ci gën a important de la chaîne ce sont les élus donc élus yooyu loolu mu wax loolu c'est pour mu ñaaxaat leen ñu gën defar parce que dañoo am seen budget am budget boo xam ne dañ ko leen jox pour ñu dérouler seen ay programme au niveau de leur local bien sûr mhm. mu nekk ay fonds mhm. fonds yi ñuy wax FDDD ak mhm. FECT FDDD mooy fonds de de de nu sax fonds d' équipement FCT mooy e mooy fonds d' équipement collectivité territoriale bien sûr léegi nag bu ci nekk am na loo xam ne moom lay faj mais ci biir boo ko xoolee dafay am ay nomenclature ay ay ay rubrique rubrique ak la may faj donc am na rubrique yoo xam ne c' destiné au secours de la population lan moo tax ay Korité ak Tabaski nii mhm, nga gis ñu naan dem si maire yi mhm. dem dimbali mhm. loolu maire bi génne ko si poche de loo xam ne dafa bokk ci biir nomenclature budgétaire bi la du dëgg alors am yoo xam ni c'est pour secourir les habitations en cas de catastrophe da ngay jékki ñu ne ah mérite naa de am na am benn dese wala benn bâtiment daal dafa wala am na foofu benn lakk mais est-ce que Bamba Fall taxaw di xaar donc c'est la même chose donc mhm. loolu da doon ñaax mhm. te mhm. au delà de ça dama koy wax au delà de ça xam nga loolu mooy li ñëpp xamee collectivité ces deux fonds là boo déggee naan fond fonds de concours fonds d'équipement loolu naan dégg mais président Macky Sall dafa ñëw indi beneen domaine cest à dafa ñëw dolli si xarme karaw en quoi faisant dafa indi yeneen fonds muy lu euh, mu sax euh, le le le lu mu tudd sax la SEL. Mhm. la SEL boo koy dégg. Mhm. mooy euh, la contribution économique locale. contribution économique locale boo ko déggee fi moo tax moo fi génn patente. ok maanaam dégg naan dem na jël na juuti baak yooyu. Mhm, mu dem dugg si biir gafa ga maire bi. léegi trésor lay jëm. mu demee trésor xam nga loolu pour lan la. pour esprit solidaire la. parce que boo nee juuti rek. c'est parce que lo ko kii boobu commune boobu. am na ay ressources. yoo xam ne mën na koo fa indil c'est-à-dire mais. Mhm. boo génnee bi Dakar. Mhm. da ngay dem. Mhm. ci ay communes yoo xam ni. waxuma la marché waxuma la bitig mhm. mais doo gis sax benn bitigu mag mhm. kuy dem kon ko ku lay indi ressource ah. léegi nag mu def généralisation mhm. boo xam ne pour ñëpp la jàppale ñu jël yëpp képp ko si am sa patente sa commune bu nekk di am lu mu dee dee minimum douze millions yow bu la joxee douze la si patente te sa commune daan loo indil patente <laughs> un million sax doo ko am quand xam nga loolu solidarité yokkutee ngi noonu ba pare ñu ñu leen doon mu indi fi pakaseen xam lañ doon moo mhm. fi nekkoon di jàppale mooy ciblage communes yi mooy ciblage communes yi mhm. mais communes urbaines yi mhm. la doon jàppale mais tamit dafa amoon ba éligibilité dañ doon xool par rapport ak sa sa sa sa efficacité ak li ngay proposer est-ce que sa plan développement yaa ngi koy respecté est-ce que yaa ngi def ay projets yu am ñu def jox la parce que loolu banque moom moo moom moo koy moo ko définir moo koy tamit financé mais ñoom dañ teg seen ay critères même Mhm. dañuy arrêté léegi dañ ñu dem nag mais loolu mhm. c'était cent trente deux communes mhm. qui devaient se partager un budget de cent vingt trois milliards sur cinq ans. donc loolu bi mu demee nag. mu affaire bi dox. parce que bu ñu la expliqué. te xam ne ngi mais est génn na ngi doon génn parce que par at léegi loolu bu génnee. Mhm. nga gis ne sama commune man am naa ci. HLM mi H&M bokk na si ñu si am. lu mhm. dëgg mhm. parce que man fa ma nekk ñay joxe fa laa nekk te ku lu sa waay jox xam naa ko ndax ñu sama loxo lay jaar. dinañ ci ñëwaat dama koy donc léegi bu leen bu leen ko joxee. nga xam ni kat ah lii kat gis nañ si. commune HLM def na lii. parce que fii lii la jógee. yow ma yow ma ko amul. da ngay gis sa bopp. mais nag gis ko amul li si ëpp. Mhm. moo doon mhm. les les les les les les communes. Mhm. les communes rurales. ñoom ñu kaas ñaxtu ko ñaxtu ko. ba ñu am le 10 octobre. 2019. le président dafa réunir. tous les élus. mooy rencontre ba ca Diamniadio. tous les politique confondue. xool ki bokk fi ak ki bokk fale. bi ñu ñëwee ñu ñaxtu ko. ñu ko vraiment pakistan dafa am solo. ñuy gisul morom benn di ko def. lan moo tax président. nga jël lu day noonu taxawu ko ñu jàppale ko. les communes urbaines mhm. nga xam ne ñoo nekk ci urbaine euh, urbaine bi mhm. ci ci ci civil bi mhm. am doole am modèle am lépp ñu ñu nekk ci àll ba di président Yaram Ndao mu ne leen wax ngeen dëgg à partir de maintenant dinaa leen promettre leneen muy PACASEN rural et PACASEN rural képp ko parce que nous avons commune commune oui faites le calcul. bu mm-hmm. fekkee ne PACASEN urbain bi 123 la. Mm-hmm. képp ku ci bokkul woon bokk nga si PACASEN rural bi. Mm-hmm. mu doon lu am solo mu am lu am doon lu am solo. mu nekk ay milliards milliards yoo xam ne. dañ ko defar def lañu fi benn hôtel de la place waxtaan. au les partenaires. ñu toog waxtaan ak ñoom ñu wax ñu carrément c' est li du développement. taxaw fas yéene génn seen gafa ga jàppale leen. ba nga xam ne PACASEN bi sera généralisé. mais loolu dimbal la. Mhm. mais lan moo tax mairie jooy tout le temps naan ñoom day metti acte trois bi. ñoom xam nga xam nga xam nga buñ ne mhm. day metti mhm. day fekk nga wone au moins benn lenn loo dafa pare. du dëgg. mais boo demee si si si si si médecin ni sa féppay métti. féppay métti. bu la xoolee ba ba féppay métti féppay métti xam nga loolu dafay doy waar. dafa doy de faaw nga teg ci baaraam. merci mais au moins sax boo nee fii. vraiment fii doxul. wanal au moins li def nga lii. bu ñu la joxee sa budget mhm. annuel mhm. loo xam ne que yow fonds de dotation ak fonds d'équipement rek mhm. bu ñu la waxee ñaata la montant par commune hmm? nga pendant cinq ñu la ko jox pendant cinq chaque année mais xanaa lu mu métti métti métti chaque année boo teg benn brique cinq ans yi dinañ gis juróom brique léegi ñu xuus ci waxtaan bi ndax brique boobu nga jàpp ni hmm. teg nañ ko fa wala am na fa wala amu fa HLM li ne mel ni pakaseen bi ba mu génnee gis nga si ay jumtuwaay yoo xam ne def nañ ko fa man de vraiment gisuma ko parce que man waruma sax taxaw di ko wax. Mhm. te yow da ngay saytu mun naa ne da ngay saytu très bien gis mhm. naa ko wala gisuma sax. dama lay jox benn exemple. Mhm. gis nga bi kii bi commencé euh, commencé jax euh, mbas mi. dañu invité ministre Omar Gueye parce que moo nekk ministre. Euh, fële collectivité territoriale. bien sûr moom moo yore maire yi. ñu war ko interroger. sur un sujet bu boo xam ne mi ngi woon les les collectivités. territoriales. face. Euh, à la pandémie. ok c'est-à-dire par rapport seen taxawaay. seen si jafe-jafe woo ma ci veille bi. Mhm. ni ma woowal ma lu au moins vingt cinq maires. Mhm. minimum. ok woowal ma vingt cinq maires mais mhm. bul yem Dakar. nga xoolal ma li bi affaire bi commencé bi ku si nekk nga def sa biir gox. fi mu gën a sore. bu ko defee ma am support bu ma demee ma xam lu argument. tey jii. sama koñ tey bu fekkoon j'étais édifié. est-ce que war naa woo maire ni ko loo fi def. ah yoon de. xam nga kon dama war ko directement rek. Mhm. suñu HLM dañuy lii ak lii def. Mhm. te loolu man. Mhm. sama sama sama sama mbégte lay nekk. sama fierté lay nekk dama jàpp amu fa. non dama ko gisul a ah, boobu gisuma ko. léegi dañuy jël mbokk moom ñëwaat <laughs> salaamaaleykum. maaleykum salaam. ah soxna si ñu ngi lay ziar bu baax. maa ngi delloo ziar di leen nuyu. di la sant bu baax maa ngi woote depuis HLM. la de ñu ngi fii ñoo bokk même. voilà euh, madame Goudia bi dëkk. acca bisimilah ñu ngi lay déglu Euh, madame Goudia bi nag moom. Hmm. Euh, pa population HLM moom defatul la dara. macha allah. lu ne def na ko lu mu am ak lu mu amul yëpp. macha allah. da koy def si si si gox bi. barki Demba Ndiaye li mujj rek mooy ni bi euh, pandémie bi bi amee. dugg kër gu nekk. HLM ba ba six. la dugg dem joxe lu mu am. jox na dugg si kër yëpp joxe leen gel ak te mënoon na ko wala si télé bi wala dara mais lu muy def yëpp da koy def si sutura ak teraanga. Mm-hmm. ba mu commencé social du tey. Mm-hmm. di joxe saaku ceeb yéeg di joxe lépp si koñ bi. Mm-hmm. macha allah. moom nga ni koy ñaanal rek mooy mu yàlla may ko gudd fan. ak wér. te dolli ko xéewal li ba lu mu am rek. mu def ko arachilène si baax yeneen bi. ñu ngi koy ñaanal. jëf am na solo merci sant ko gërëm ko. li ni mel confirmation la waaye léegi mhm. njeextalu émission bi dinañ ci mhm. ñëwaat ci nu mu gën a yaatoo mhm. dañuy continuer jël kooku salaamaaleykum kooku rëcc na mais yaa ngi woon fu am solo parce que man mënuma comprendre nga da ngay sa liñ koy jox te duñ ko dewal foofu moom xaalis bi fu mu koy dugal waaw li man man. ah déet faaw ko tontu ci de HLM <laughs> ah. ma gis feneen fu mu koy def kay. mun naa seet bu ñu teg pour euh, voilà pour oh. ñoom liggéey ñoom liggéeyuñ ko. mais tey lan moo ci sa li ni mel déception la kon ci yow. enfin déception la déception la déception la. ñu jël kooku salaamaaleykum. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. soxna si ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. maa ngi lay nuyu bu baax tamit di la fay tamit. jërëjëf euh, tur bi rek euh, lan la mi ngi nii madame Goudiaby lan nga ñu mën a wax ci moom. waaw li ma mën a wax bëri na man maa ngi tudd Koura saw nekk présidente euh, bàjjenu gox ak réseau ah. communautaire euh, des communes des tudd na la fi léegi. Mm-hmm. waaw. Mm-hmm. Euh, li ma mën a wax rek mooy. Mm-hmm. ci pandémie bi. waaw ak ci laal la. parce que bi pandémie bi commencé. ça fait léegi un mois. laal la ñu woo. ne ñu man daal bu ma sañoon yéen bàjjenu gox yi ngeen jóg. Mhm. sensibiliser ñun ñi waxtaan ak ñoom wax leen naka la ñuy moytoo feebar bi. Mhm. mais mënu leen a dem noonu rek ak ay loxoy kese. Mhm. booba kenn jógagul fii ak leen. man gox laa xam naa li xew ci gox bi. mënu leen dem noonu rek te amu leen ay arme yu ngeen demee. ci la jógee ànd ak ñun jëndal ñu ay gel yu bëree bëree bëri. ñu ànd. sensibiliser ànd ak bàjjenu gox yi dugg ci kër yi yëpp mhm. nag mhm. cité port ba cité des eaux mhm. kër yi ñu mën a dugg yëpp dugg nañ fa jox leen jox leen asaka yéeneem ba pare du question nag jox leen asaka yéene bi sax mais pour sensibiliser nit ñi la ñu jëkkoon a sant pour ñu def ko ñu jóg waxtaan ak nit ñi wan leen naka la ñuy moytoo feebar bi waxtaan ak ñoom ci naka la ñuy moytoo feebar bi lépp ànd ak moom te moom lañu ñu àndal li kër gu ñu dem dugg moom lañu ñu àndal man gox laa dégg nga. Mhm. sa min bés bu nekk nag mi ñuy woo ndax yéen a ngi sensibiliser yéen a ngi waxtaan ak lii barki démb moo ci mujj. ay mhm. ceeb la la jox ma xaalis. Mhm. ne ma demal nga jënd ay saaku ceeb. nga dem am ñoo ko distribuer. bàjjen yi am na si ñoo xam ne distribuer naa leen jox naa leen seen i saaku ceeb ba tey jii tey ba sànq rek am na ñu ñëw jël si seen saaku ceeb. li mu mën nag mi ngi koy def. man hmm. sensibiliser chaque jour mu woo ma ba bërki démb mi ngi may woo naan ma ndax yaa ngi dugg ci kër yi di waxtaan ak ma ne ko loolu mooy sama euh, rôle parce que loolu lañ ma formé hmm. immeuble yi dugg naa plus de cent trente et appartement appartements man hmm. nii te mag laa mhm. di yéeg premier étage ba quatrième étage wàcc di sensibiliser yéen ñi chaque jour mu mu ngi ciy jànte li ñu jàppale nag ak asakaam yéene mhm. li mu mën fii ci aslem mi ngi koy def mhm. man bàjjenu gox laa dara jaralu ma wax ku def ma wax ku deful ma wax waaw moom nag def na li mu mën mi ngi koy def di jàppale bàjjen ni lépp lu mu mën mi ngi koy def. ci mhm. HLM xam nga mënuma fi nekk di wax li la di def parce que ci affaire pandémie la ñu nekk. dëgg la looloo tax si loolu laay wax. Mhm. mais bu fekkoon ni leneen la dinaa wax si leneen. Mhm. mais ñun duñu def ñun lu dul di ko sant. di ko gërëm di ko ñaanal. am na ñu ngi koy sant di ko gërëm nag di ko ñaanal. parce que taxawaayam dafa rafet macha allah. ça un mois bi ñu bi ñu àndeek moom jóg. dugg mhm. ci kër yëpp cité des eaux cité port mhm. bàjjenu gox laa duma wax lu dul dëgg dëgg la ñu ngi may dégg dégg mhm. am na solo ànd ak ñun nag te toogul dafa ànd ak ñun yore ay gelem gel yi jeex ñu àndaat saw ñu taal otoom ñu dem jëndiwaat ay gel ñëw di distribuer waaw kon kooku ñun du ñu def lu dul di ko ñaanal wér jërëjëf gudd fan ak yokkute parce que ñun xam nañ ñu boo amee rek mu am am na solo jërëjëf dara soxalu ko nag lu loolu asilem mhm. kese kese kese moo ko tax a jóg mhm. jàppale askanu asilem kon man en tant que président de bàjjenu gox mhm. turu bàjjenu gox yi du ñu def lu dul di ko remercier di ko ñaanal bu baax a baax fi mu mhm. bëgg yegg yàlla na ko yàlla jàppale ba mu yegg mhm. fa mhm. parce que li mu mën mi ngi koy def xam nañ ñu nag a ama gën a am asilem kenn du sonn kooku man xam ko jërëjëf ba léegi nii uh-huh, uh-huh. léegi nii bàjjen yi am na ñu ñëw léegi ma jox leen ay saaku ceeb ñu yóbbu am na solo waaw am na solo waaw li mu mën mi ngi koy def sa pareegul parce que am na yeneen bàjjen yi des suba la ma waxoon dina ma jox ma jëndaat ceeb mottali bàjjen yooyu def mhm. kon duñ koy ñaanal wér ak gudd fan mhm. am na solo waaw am na solo yàlla jàppale ko may ko wér kontaan nañu trop vraiment ci moom ci liggéeyam dafa rafet macha allah mhm. macha mu toll mi ñuy woo dem leen dugg comme ay bàjjen yéen dem leen dugg waxtaan ak nit ñi ñee leen ci feebar bi te loolu la ñuy def ñun am na amuñ fii moom zéro te moom la ñuy ñaan yàlla mu continuer te li ñu mën ñu ngi koy def démb ci suba boulangerie balaa xëy waxtaan ak ci gérer boulance bi. Mhm. ba ma demee maa ngi taxaw di sensibiliser nit ñi. Mhm. ak ni ñu doon jege yow pour ñu sori yow. jërëjëf loolu lépp nit ñi ci doon dañ fe pour ñu def ko. jërëjëf sant di ko gërëm di ko ñaanal am na solo yàlla. jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf ñi ngi woon fu am solo mhm. parce que lii yëpp dinañ la bàyyi ci njeextalu émission bi nga daal siy wax parce que c'est touchant parce que gestes yi ngay def itam da nga toog fii wax ko yàggul rek ñu confirmer ko ci terrain bi ne yow yaa doon def li ni mel kon dafay baax rek ñu daal di koy wax waaye ñu ngi woon fi ab solo parce que doo leen jël tamit ay initiative te ñoom du ñuy jëfandikoo liggéey bi ni mel tamit loolu ndax saytu ba ca war yéen a ngi koy def. waaw xam nga man dama ne boo nekkee ci ci ci ci commune. Mm-hmm. Mm-hmm. yàlla def nga jiite. te mm-hmm. yow kese da ngaa jiitu. benn lam du yëngu. benn loxo tamit tàcc. dafa nekk. Mhm. toog fa ak ay conseillers. Mhm. municipaux. bien mais man pour man. Mhm. un maire ne doit pas se limiter. à son conseil municipal. parce que conseil municipal bi kese. tuuti na pour représenter gox bi. même si ils sont élus. cest à que ni par générosité. man maire dafa war bàyyi xel conseil de quartier. Hmm. parce que si gox. dafa am ay conseil de quartier. am na solo. am ñoo xam ni ñi nga mhm. xam ni yàlla boole leen si liste yi dugguñu mhm. mais ñu ngi si gox ba mhm. te ils sont pas plus boolu leen négliger par rapport ak ñu nekk ci biir maanaam jàpp ni dafa am dañ dañ leen war a woo leen boole cest à boo demoon bay def conseil municipal da war a woo ñi nga xam ni ñu élargir ko voilà tout couche bu nekk nga jël fa kenn koo xam dafay ñëw bu ko defee yow boo liggéey boo defee lu aw yoon. Mhm. balaa kenn di bu la bu la di xaraf. Mhm. yow doo defal sa bopp nit ñoo lay xaraf parce que ñëpp si gis. tey jii man laal la Aïcha man waru moon toog tey. Mhm. vraiment di foofu di ma um bu ma ko wooyee di barki démb. dégg naa lu am lu xewoon foofu. commencé nañ def seen ay réunion pour sensibiliser ciblage bi. di xool. ndax yow ànd nga ànd nga d'abord ci bi. non parce que ciblage ko bi ni ñu ko tegee. comité bi parce que comité maire bi. Mhm. dafa war a jël. Mhm. au premier chef. Mhm. woote euh, le conseil municipal. woo les délégués. de quartier. woo les pré les jeunes. ASC ñu koy représenté. woo. bàjjenu gox yi. imaam imaam. député. député au conseil. te yow ci nga bokk. merci. te wóor na yàlla mm-hmm. man woo naa ko toog naa di ko ba ma koy woo bu mm-hmm. fekkee ne xam naa ni boobu ñu ngi réunir mm-hmm. <laughs> yàlla bu ma génn fi xaw ma ci woon ndax su ma la bëggee dégg maanaam booleew ñu la si comité bi booleew ñu ma loolu waaw amul problème mais man dama ko woo <laughs> am na lu ma ko doon woo di nga wax loolu am na solo nañ ñëwaat léegi-léegi salaamaaleykum ñu jël mbokk moom <laughs> salaamaaleykum maaleykum ngi sant bu baax waaw yaa ngi ci biir waaw maa bëggoon a wax ci ci Lalla moom. waaw bisimilah yaay tur bi. Ah, Sankhare Naram Taay. Mhm. jërëjëf bisimilah. waaw may wax ci la moom rek bëgg gi mu bëgg HLM. Mhm. ndax du tey la la la bëgg HLM. Mhm. moom ba mu nekkee jeune. xale bu tuuti. di jàngale. loo commencé bu vacance jotee mu dajale xale yi HLM yëpp di leen defal euh, kii di leen defal gratuit. fàttali ni professeur lettre la mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. ñu ne déet na waay bu bu bu weer bi deewee mu jënd ay saaku ceebam di fayal jàkk yu courant kër gu nekk mu dugal sa saaku ceeb di fayal jàkk yu courant di leen yóbbul basang di leen yóbbul satala dajale dajale jigéen uh, asalem yi di leen wutal financement ñuy jàpp ci dara di liggéey di remboursé kon du tey la la def ci HLM. Mhm. corona bii da koo mhm. fekk muy def lu baax ci HLM. Mhm. lu dëgg. keroog ba ñu nee corona bi ñëw na ñaari fan la def mu jënd ay gelam HLM 1 ba ci këroo kër mu dugg. di joxe ay di joxe ay gel. ñu koy ñaanal yàlla nag mbëbëtam ci HLM bii yàlla na koy fekke yàlla may ko wér ak gudd fan. ba lim mbir ci HLM bii yàlla defal ko ko. ci barke Seydina Mouhamed. jërëjëf. Mhm. loolu rek lañ ko doon ñaanal. Mhm. munul ñu invité ko ci ci ci réew mi FM ndax HLM te waa HLM munuñoo wax. Mhm. am na solo kon ñu ne dañoo iñaan. ba muy def ci HLM nag du tay yàgg na. jërëjëf. waaw ma koy ñaanal yàlla rek yàlla may ko gudd fan ak wér. alhamdulilah am na solo jërëjëf merci. jërëjëf euh, madame dañuy ñëwaat ci comité bi parce que comité bi ponk la bu am solo boo xam ne. ñu bari ñu ngi koy ŋàññi ah. mm-hmm. parce que dañ naan buñ ko taxawalee. Mm-hmm. ñenn ñi seen ñooñ la ñuy dugal. Mm-hmm. donc ñu beddi la si. ah mel na ni loolu lan moo tax ndax féetewu leen langue politique wala bokkoo leen ko wala lu mu demee lan la. waaw mais parce que man bi may dégg directrice de l'équité territoriale di ko wax. def ni maire buñ ci mën nekk. na jël toutes les sensibilités. te mën naa ni sax yéen yow bokk nga ci li ngeen coiffé. <laughs> mi ngi noonu. waaw <laughs> donc doy na war daal. Mhm. donc même fekkee ne yow maire bi. Mhm. da nga da nga am ay conseils yoo xam ne bokku leen sax. Mhm. parti wala dara. normalement. <laughs> da nga ñooñu nga war a njëkk woo. parce que mbir bi dafa war a leer dafa war a nekk loo xam ne équité. du dëgg boole si ñëpp daal boole si ñëpp. mais mais léegi euh, taxawalu euh, li nga xam ne nag moom moo jëm ci comité bedd bi léegi euh, askan wi ni ñu leen di sensibiliser ni ñu leen di boolewee ci biir comité bi. waaw kon est-ce que danga nga jàpp ni euh, xaj ak seen moo ci nar am. waaw mais xàjj ak seen parce que man pour man. Mhm. ñañ ñañu woo ñu dem. Mhm. ils sont regardants. war nañ am mat boo xam ne war nañ am mat boo xam ne. Mhm. du am fay mais dafa am loo xam ne. xam nga loo jàngul doo ko tari. ah loolu de loolu lañ wax. xam nga loo jàngul doo ko tari. loolu lañ wax de. Euh, dama la jox benn exemple. Mhm, tey jii. Mhm. Euh, dañ ni si ñi ñi les bénéficiaires. Mhm. dañ ni en premier chef. les bénéficiaires de de. RSN bi RSN. bourse mooy bourse bourse léegi yow bourse yi. te dañ ni. président Macky Sall daf ni. Euh, tant de saaku ceeb. pour chaque famille. est ce que xam nga ne yow. bourse familiale yi. di dugg ci kër goo xam ne. quatre bénéficiaires moo fa nekk. waaw ah, loolu de jot nañu réparer ko de. léegi tey boo nee chaque famille. Mhm. ñaari saaku ceeb. alors que nga dugg ci benn famille boo xam ni. Mhm. cinq bénéficiaires ma ngi fa si bourse familiale est-ce que léegi nombre bi dina dina juste. non déet balance bi kay day. merci waaw léegi nag. te loolu xam nga fa la nar a feeñ. Mhm. bu ñu demee ba nga xam ne. parce que après dañ dañuy jël en charge. Euh, électricité yi. pour jàppale. jàppale askan bi. du dëgg. Mhm. mais xam nga bu boobaa duñ dem. duñu mhm. xool ci. Mhm. kii moo mooy bénéficiaire bi. da ngay da ngay am kayit. bi ngay firnde facture firnde. tey jii yow tey bu nekkoon benn kër. ngay ngay bénéficier mooy bénéficier wu. sa réalisateur bi si bénéficier nekk si benn kër. mais jour suñu numéro kër nekk vingt quatre mais jour bu ñuy ñëw fay si courant bi. Mhm. bëgg la jàppale bëgg ma jàppale bëgg la jàppale day fay. parce que dañ benn facture benn tur lay nekk. benn lay doon de waaw bien sûr. mais tey jii est ce que ña nekk signalé lañ lool. da jàpp ni jumte boobu am te kenn signalé ko. est ce que signalé lañ ko man de woo fa. Mhm. xaw ma la fa xew. <laughs> mais da nga fa war a am nag ana conseil bu la fa teewal. <laughs> ma nga fa conseil ba moom daa cuubu yàgg na <laughs> mais amul problème. su ma la déggee mooy maanaam jóge na ci yow. ba <laughs> euh, conseil ba daa cuubu mi ngi noonu. ah li ngay wax doy na waar. waaw mi ngi noonu mais yooyu donc léegi mais itam. Mhm. askan wi ñi leen fa war a teewal. Mhm. léegi bu ñu demee ba saytu lu ñu mel. parce que itam nii nga wax nii itam bu dee noonu la nar a amee. kon ñu bari dinañ. duñu am ci ndimbal gi parce que bu ñu nee gis nga wax dinañ leen mhm. ci impliqué. c'est pas pour rien. parce que xel du doy. ñoom ñoo gën a xam. parce que tey jii man Lalla Aïcha bu ma mm-hmm. toog mm-hmm. jàppale leen si plage bi. Mm-hmm. damay wax man sama saako taxaw pare. dinaa ko yomb parce que dama am na wax gën a yeyoo. bien kon xam nga ceeb yóbbu ma fa. moo tax nit ki li mu moom. da koy jox saytu lu leer rek waaw mais man it mënuma comprendre nga nekk ci ci ci ministère collectivité territoriale ñu la ci beddi amaana man mun naa jàpp ni sax yow yaa leen coiffé. ci li ni mel mais implica bon est-ce que du mbirum politique la ñuy wax foofu mën naa am mën naa am mën naa am parce que man woo naa ko te wul <laughs> morom jete bi ma koy woo mhm. dama ko doon woo pour encourager parce que yow coow li bari na ma di ko woo mhm. sama aqulaay taala laa taxaw man ku ma xam-xam ne xaw ma fen mhm. yàlla bu ma tiim moom billaahi wallaahi taala dama ko woo doon woo pour pour encourager ko <laughs> ma woo ko jëlul ma woowaat ko jëlul ma woowaat ko mi troisième fois jëlul ma bàyyi donc assurem daal am na problème. am na problème am na problème te d'habitude bu sama sa sa mu sonné buy benn sonné mu jël. boobu jëlul serment. kon da nga jàpp ni ndimbal moo ñëw mu. mu fàtt waaw wala am na je sais pas. je mhm. pas mais mhm. loolu. footum mhm. biir néeg la après man ak moom xamante nañ on se sait. dañuy xuus ci waxtaan bi ñii am na ñu dugg seede ko ne. laala ci social bi. HLM du tey nga si doon dugal sa loxo itam. Mm. ay journée consultation gratuite. Mm-hmm. man am na yoo xam ne fekke naa ko te dem naa ko couvrir ko. donc lan la moom donc bàyyiwul HLM. ci li nga mm. xam ne moo di ndimbal. Mm-hmm. loolu lañ mën a wax. waaw mooy li ma la wax rek xam nga politique dafa nekk lu diis loo xam ni. Mm-hmm. Euh, boo si engagé woo. fexeel ba ba ba jéem ko mate. jéem laa wax parce que mate bi amul fenn. déedéet. boo demee ba engagé wu xam nga Jean Paul Sartre daf ni mhm. bu fekkee nii da nekk euh, une personne ressource. sama niin nga nekk de professeur lettre nga <laughs> salaamaaleykum ñu jël mbokk moom salaamaaleykum allo. ñu ngi sant bu baax soxna si tur bi. ñu ngi sant bu baax alhamdulilah. waaw a dalal. jërëjëf. dalal ku ku bëgg mbokkam mhm. ci yërëmi magam mhm. yërëmi rakkam mhm. bëgg waa HLM defar HLM defar boppam xaarul kenn ci leen ku ñëw rek dañ koy fekk ci li mu def dañ koy ñaanal nag li mu sumb yàlla defal ko ci ndam ndax ku baax ngeen dalal ku bëgg quartier ku bëgg goxam ku xam lu baax ci goxam ku waa goxam gërëm nag alalam ñëpp ko lekk. Mhm. waaw dafa dara ngeen di sell. dafa mhm. def lépp da yàlla tax. Mhm. ak bëgg askanam. am na solo. ak bëgg goxam. goxam rek ko ñëw. waay leneen leeru ko lu muy goxam. HLM rek ko ko intéressé. bëgg-bëgg HLM lay xool. lu ñu bëggul bëggul. am na solo lu ñu bëgg nag ñu wax ñoom ba ca kaw ca kanam. kon boog yàlla na ko yàlla defal ndam. am na solo jërëjëf HLM jërëjëf. te bu soobee yàlla da koy am. incha allah ndax borom xol bu la jërëjëf borom xol bu baax la. jërëjëf. lépp lekk alalam nag. Mhm. di ko ñaanal ca kaw ca kanam rek. Mhm, mhm. yàlla mi mën lépp. yàlla na ko jàppale ci lépp ci barke Cheikh Sadou Ndiaye. incha allah jërëjëf alors ñu continuer euh, li nga xam ni nag moom moo jëm. ci wax yu am solo yi nga doon wax mm-hmm. maanaam aspect social bi mm-hmm. ponk la boo xam ne dafa am solo parce que xaar ma mm-hmm. tënk ko ko rek mooy euh, journée gratuite yi ngay def wàllum paj mi bibliothèque bi nga defaral waa HLM bien vrai que professeur lettre nga xam nañ ne ci njëriñu bibliothèque xam nga ko lool mel na ni couche bi HLM daal euh, la nga xam ni moo jëm ci actrice développement bi nga doon. Mhm. am na ci ponk bu am solo la ci yow. waaw kay parce que léegi de da nga tudd da nga tudd benn mhm. euh, moo bu am solo. mooy muy développement. développement ñu jël ko. Mhm. salaamaaleykum. rëcc na développement. waaw euh, parce que fi mu nekk nii. dañoo toll si jamono boo xam ne. xam nga dafa am benn mag bu ne. politique léegi dafa jafe xam nga tax mu jafe. déjà yow. Mhm. normalement. Mhm. boo amul luñ la nawee. waroo ko mhm. def. léegi rek bu may ñëw rek maa ngi dégg kenn ku doon waxtaan naan politique buñ la bëggee xas. si ki la jege di politique lañuy la ñuy xas. mais na fekkoo ko am luñ la luñ la xasee. kon dama di politique. dañ naan politique man damay prôner la politique autrement. naan politique de valeur. xam tax. dama pour politique pour man. jaayuma saa bopp de. mais boo amul valeur mënoo ko def parce que xas la si dafa yomb. du dëgg bien donc tey jii. Mhm. boo jógee di def politique. Mhm. da nga bëgg politique. Mhm. bul xool rek ni. kii amul moyen. parce que xel ba. mën na gën a rafet mën na gën a riche moyen yi. xam nga loo bëgg nga dégg foofu. man bi may commencé def social. boobu sama salaire professeur kese laa yor. di jàngale lycée Kennedy. ah mais du du balaa lycée Kennedy sax Samba bi laa jëkk jàngale. parce que après bi ma si soli sama mémoire da si lañ ma détaché yóbbu ba reclassé ma yóbbu ma crédit mhm. mais biir Samba Gueye dama doon saraxu sama principal ñu mhm. ko par vacances dama dimbale ma alma école bi mhm. ma defar xale yi cours de vacances gratuite parce que ñëpp amuñu boobu politiquement woo sama collègue nag ku nekk ma ñaan la ñu jël kooku yàgg na si ligne bi salaamaaleykum salaamaaleykum rëcc na ñu continuer di ñaan

bokkuñu ak suñu jamono yàgg la. ok actuellement nii. Mhm. la population est avertie. yàgg na si bi ñu jël ko salaamaaleykum. maaleykum salaam. soxna si ñu ngi ñu ngi lay ziar waa sant bu baax alhamdulilah tur bi. dem yàlla nag ziar man maa ñëwaat rek euh, man mhm. Koura Sow Adja Koura Sow. Mhm. waa ndax euh, dama am lu ma dégg am ñu fi jóge léegi doon ko wax ci affaire lu laa la xam nga ci affaire pandémie bi rek laa doon wax. kon man mi nga xam ni man la joxoon yëpp. Mhm. su ma ci wax foog ma wax ci. Mhm. ndax euh, jeunesse HLM tey jii. Mm. bu jëlee ay san jeunes. Mhm. may leen permis te mu jaar ci sama loxo loolu foog mën naa ko war a tudd. Mm. jeunes yi mu may permis ñu ci bëri xamu leen. Mm. man nii mën naa doon jël association bu nekk. mën naa fa doon dem di fa jël ay jeunes. man nii mën naa def loolu. day dajeeg nit. lu tax mu xam ni kii may na ko permis day daje kenn ci mbedd mi kooku nuyu ko ne ko yaay laa la Aïcha maa ngi lay remercier bu baax mhm. yow yaa tax ma am permis mhm. xamul xale yi mu may permis ñu ci bëri xamul leen da ko mhm. doon def ngir yàlla pour xale yi am ci lu ñu jàpp centre social bi ñuy wax la fa dem lépp xamul nu mu mel ba waa centre bi direct ci yore centre bi di jàngal xale yi foofu ñëw ak restauratrice bi mu ko ko proposer ne ko suñu centre bi amul dara dañu bëggoon nga jàppale ñu. Mhm. mu ni ma demal xool centre ba lan moo fa amul ma dem xool centre ba lan moo fa amul. Mhm. wax ko ko. Mhm. mu jox ma ne ma demal jënd. ma dem jënd ay machine dem jënd ay frigo dem jënd ay cuisinière lépp. mu jàppalee ko xale yi nekk ci centre bi bëgg a jàng pour ëllëg ñu mhm. mën a réussir mhm. kon loolu man dinaa ko tudd tey ak yeneen ak yeneen ak yeneen am na solo dañoo nekkul ci moment wu politique mhm. loolu moo tax moom dina ci ñëw incha allah foog ma foog ma sànni ci sama kàddu wax ko am na solo am na solo am na solo donc dañ koy sant rek. Mm. Mm. Euh, ñu ngi doon ci euh, fànn wu am solo. mooy mm. politique bi ku ci amul nawle tey. voilà voilà jarul nga ciy dugg. voilà mm-hmm. voilà ba pare tamit politique le mot développement que tu as. Mm-hmm. que vous avez soulevé dafa am solo. Mm-hmm. parce que actuellement nii. booy def politique kese. def naa doo jëm kanam. il faut nga boole ci développement. li tax boo wax loolu mooy la. Euh, booy politique dañ actuellement nii on est en face des acteurs qui sont avertis. ndax euh, dama toog benn makka mu ne ma lan la politique léegi jafe na de ma ne ko ah, mu ne ma gis mhm. nga temps wu Senghor mhm. euh, moom dafa ñëw mhm. fekk suñu maam yi ñëpp toog di nelaw xamuñ dara di nelaw rek lekk liggéey ñëw tëdd mu ñëw politique ba xolam sedd ba doyal woo Abdou Diouf jox bi mu joxee Abdou Diouf Abdou Diouf ñëw di gérer. Mhm. fekk suñu maam yi doon nelaw. Mhm. yeewu dem jàngi kon kenn newatu woon fi kër yi. Mhm. mu politique ba doyal dem. mais Macky Sall Abdoulaye Wade bi mu ñëwee. dafa fekk ñu jàngi woon ñibbisi. ñëw yeewu. mën fal mën folli. kon kuy def na nga xam li ngay def. ok donc. peut-être loolu moo tax. il faut ñu changer doxalin. parce que politique politicienne. man c'est une pratique que je bannis avec la dernière énergie. non seulement man man ku ma xam-xam ne sama credo mooy la politique politique autrement ba nag boo ko waxee nag mhm. mooy dugal ci biir loo xam ne dafay jëriñ nit ki mhm. parce man ruus naa di ànd ak nit politique mhm. donc je parle sous le contrôle de mes militants ñi may dégg samay collaboratrices musuma jël ay nit dugal leen ci kaar leen kaar leen dem tàcc loolu dama ko ruus parce pour man yàpp nit mënul wees loolu man ñi may politique di jàppale damay jàppale président Macky Sall. Mhm. élection moom laa jàppale. Mhm. moom moo namay au conseil. Mhm. mais musuma di jël ay nit di ko yóbbul ñu koy tàccu. parce que man ci benn réet man daal ci loo xam ni luy jëmale askan bi réew. ay débat ak yooyu. même xale yi may àndal dama leen wax il faut ngeen nekk au diapason de ce qui se passe. parce que il faut que ñu def la politique autrement. Mhm. ba nga xam ni que vraiment kenn duñu sipp parce que politique actuellement dañ ko sipp dañ ko sipp ba dañ ko ragal. Mhm. te li tax ñu ragal ko mooy defin ba. Mhm. ñun nag ñu bokk si ñi nga xam ni. dañoo bokk si couche boo xam ne dañoo war a war ni. politique il faut que ñu am ko parce que pour man le mot apolitique. n'existe pas. ok gëwuma il faut nga politique. mais nag na ko def ak la manière. su ma la déggee mooy euh, est-ce que mairie bu HLM kon man doog ba ma néeg laal la ay cheval ba léegi mhm. gimmi mhm. ba may dem école di gàddu sama sac mhm. di daw di jël euh, peton di yëy yëf fi di jaar fii ak foofu boobu Aïda Mbeng Aïda Jong moo fi nekkoon maire boobu loolu laa mu daan dégg Aïda Diong Aïda Diong maan kuy Aïda Diong Aïda Diong bi mooy màggee laa doon xam ne Aïda Diong maire la woon mhm. au moins amoon tur déggoo lañ ko dañ ko doon sentir <laughs> léegi loo loo mais man boobu ba léegi mhm. sentiro sentiro ma c'est-à-dire que non xam nga lu tax sentir moom c'est mhm. pas par le par par par par, par le nom mais par les actes okay. parce que politique acte la yooyu posé normalement dëkk boobu ba léegi HLM devrait changer de visage mais man la la Aïcha ba ma dee dugg HLM 4A nekk fa sixième élémentaire ba mhm. léegi mhm. yoon yi ma daan jaar na doon mel lay mel mhm. la ma daan gis la daal gis gisuma lu change HLM maire bi fii la toogoon nee na lépp gongo ci HLM parce que am na ci yoo xam ne maanaam stade bi mi ngi ci HLM léegi tali yi yëpp defar na ko <coughs> làmp yi maanaam fenn euh, euh, bu guddee féppay tàkk moom de fii la toog wax ko ne HLM mi ngi ci yoonu émergence yow mi nga xam ne yaa dëkk HLM di yeewoo ak moom lan nga gis bu sa bool tamit tamit nga teg sa kër dëkk dëgg nañ te lakkal la say ginaaru neex ngay toog di lekk bu la la xajee gongoro ngay mën a wax te yee sa ginaar ah fii la toog wax ko de fii nga toog sotey bi waaw am na ci droit mhm. mais ñun ñi nga ndax yow gis nga ko mais ñun ñi nga xam ne ñun ñoo dëkk HLM mhm. te xam li ñu bëgg si HLM mhm. xam nañ ni que HLM H&M ñun li ñu bëgg mu mel melagu ko des na dañ ko gisul xam nga boo lay des na day fekk atak lañ benn jéego kon jéego amul man gisuma ban jéego man boo demee marché HLM commerçant yaa ngay jooy. Mhm. maa ngi leen di nuyu au passage ñoom mhm. Naar ñoom mhm. Touré. maa ngi leen di nuyu ñoo ngay jooy. ah ñoom nee nañ euh, boo leen gisee marché bi euh, xaw a metti ndax maire bi foire lay indi di leen di ko teg seen kaw. ba loolu moom dama ci dugg. kayitu kayitu foire yi <laughs> waaw si parce que moom moo ko wax nee na parce que foire yi boo gisee mu koy indi ndax yenn am na lu yenn euh, euh, koñ yoo xam ne pavé na ko. te dafa bëgg mu yeggali. pavé na ko te xaalisu foire euh, boobu la pavé boobu moom. Mm-hmm. man xam nga pavé ban laa gëmoon bi nga xam ne Khalifa Sall moo fi nekkoon maire doon def. Mm-hmm. pavé yooyu moom pavé naa ne Khalifa Sall moo bi ma gis nii HLM nii. Mm-hmm. non non. waaw moom mën na mën na ci non mhm. pour man du pavé maire maire pavé ko. kon des foofu laay foofu laay jaar foofu laay yem daal mais du moom moo ko pavé. mais euh, tey ñëpp a ngi naan. man mhm. waxuma ko dama ko force ci weewu béy. HLM foo mhm. tourné ñu ngi ne. la Aïcha de moom moom mooy euh, koo xam ne ku nekk ci kujje gi ku njëkk te mook maire ñoo bokk seen coalition waaye moom fauteuil bi rek la xool. ñoom loolu lañ lay jëyee HLM. Hmm. ne yow mairie bi daal nga soxla mooy sa yitte kon yan projet nga fa am. waaye xam nga lan moo neex. Mhm. mbaa xam nga tey jii décembre la ñu waroon def élection locale. Hmm, waaw ñu reporté ko. Mhm. décembre bu taxawoon. Mhm. bu ñu fekkoon c'était pas reporté ma moo doon troisième fois ma ngay briguer mbaa xam nga loolu. maanaam def nga ko defaat ko defati ko très bien. bu bu amaatoon da nga koy defaat. ma rek ma ñëw. Euh, bu fekkoon ni. fauteuil boobu ngay wax moo ma ñor. bu ma demee benn yoon brigué ko mhm. yàlla weddi mhm. damay toog sama kër jël la ma am mhm. lekk ko ak sama njaboot te du ma fande ok mais dama leen wan ni c'est pas le fauteuil mais c'est la commune qui m'intéresse xam nga nan lay doxee dëkk ci dëkk bi defar dëkk bi moo ko gën mooy slogan mooy sa say slogan bu fekkoon loolu la kon tey jii toog taa jàpp sama ñaam kon mawet bi parce que ruus naa vraiment dem briguer yàlla weddi ma toog sama kër ba élection jot ma ñëwaat déedéet def naa li ñu fi wax yëpp leer na. Mhm. maa ngi leen di jéem a accompagner maa ngi leen di jéem a wan leen. Mhm. parce que engagement la. Mhm. engagement dafa diis boo dee gor. boo engagé woon dama ñëw. pour ànd ak yéen. bu ma gisee sa xale naan ma. dañ leen jàppalal Aïcha mu ku ma nar jàppale pour ma jël ko ngay jàppalal sa bopp. ok parce que lii ñuy def c'est pour la commune. c'est pour tout le monde te dama bëgg bés bu loolu amoon. tey balaa laal Aïcha di si boppam. képp ku yeewu Aïcha gis sa bopp parce que loolu moo euh, moo ko teree démarrer mën na am boo dee arbitre bi rek man ma yore sama dàll sol yore sama sama godaas mais euh, lan tamit du du du du du metti itam tuuti ak responsable yu nekk ca HLM mën nañ ci citer abdu Diouf Ndiaye moom directeur la am na ci ñenn ñoo xam ne ay daaw Ndoye ay conseiller lañ foofu noonu euh, ndaxam tey mën nañ xaar ax ñooñu Euh, benn liste jëm liggéey aslam bu dee moo la tax a jug. loolu ngay xam nga xam nga fi mu nekk ni yaw dèjà yow dugal nga ma ci élection yi te yàgguñ sax. Ah, loolu la ma jaaxal damaa xaw a miin foofu rek. waaw taxawoon rek nag dugal nga ma ci <laughs> te man dama jàpp ni malaa nga naan am ne fa. waaw ndaxte élection yi dèjà. Mhm. report nañ ko. Mhm. xamuñu dans un an la. Mhm. xamuñ dans deux ans la. xam nga lu ñu ñaan. yàlla may ñu fekke ak tal. ba ñu xam lu ñuy taxawee. ñooñu nga tudd nag. muy Abdou Diouf Ndiaye. sama raq la. du def lu ma yëgul. du def lu ma yëgul mhm. lu ñuy def ñu ngi ciy waxtaan mhm. mi ngi biir APR mhm. te li ngeen léeréer mi tam mooy Lalla Aïcha ne pas une militante de la l'APR man xam naa loolu très bien dama yore sama mouvement autonome di soutenir le président Macky Sall mooy COFEM COFEM te COFEM sax li ngeen ci xam moo da ngeen ko xamee la coalition des femmes Macky mais sur le récépissé on a mouvement des femmes leaders leadership et développement femmes leadership et développement c'est-à-dire des femmes mmh. qui incarnent le leadership féminin bien sûr et qui croient fermement que mmh. le mhm. développement passe forcément par les mhm. moo tax na euh, HLM war a am jigéen bu ko jiite jeex na mhm. léegi euh, kàddu gu mujj gi lan la ñi fi bawoo woote téléphone indi ay témoignages ba ci jàpp ni sax ni fii bu doon euh, siwo lañ fi teg kon mu fees ay rongoñ <laughs> bari woon na xawoon na fi jib sax tuuti alors lan lay def tey nga nekk gox nit ñi di la indil seede gi mel. waaw loolu déjà ma leen remercier ñi dugg ñëpp. Mm-hmm. ku ko nekk je crois que par le voir xàmme naa leen. Mm-hmm. ñoom ma euh, Tatakura. Tatakura mm-hmm. moom maa moom dootuñu ñaar benn lañu. mën na ma jur sama mag foofu sax mais ku baax ku ma bëgg ku ma yéene. xam nga balaa moo neex nga liggéey ak moom da lay yéene. Euh, Betty Dia. Euh, tey gay Aminta ak ñi ma si xàmmee donc ñëw dugg. di wax mais ñoo ñëpp contribution yëpp pour man. sas la. te man dama ragal ku ma sas. Mhm. man boo ma waa góor. Mhm. rey nga ma. da ngay dem parce que bëggatuma mhm. nga ne acam. Mm. loolu moo tax. ma bëgg des fois lu ñuy def ñu si boole jigéen. parce que gis nga lu jigéen bokkul. du dem. du safe daal. da dem balaa saf du ñëw ndax yow mi nekk sa biir kër. dem ñefe ji. liggéey indi sa alal. yàlla may soxla boo xam ni. si kër femme au foyer la. kooku ci biir. Mhm. bu amul lu mu taxawee. bu mhm. amul benn charisme bu amul benn fulla ak benn fayda. Mhm. loo indi da koy yàq. jigéen bëgg na waa góor. jigéen bañ na defet jigéen am na fulla. moo tax. dans la gestion de la cité. il faut penser à impliquer les fem mais nag ci biir implication boobu. du lu ñuy commander. loo xam ne dañ koy imposer la. da ngay foqarti ak suñu personnalité. Mhm. ak suñu fulla. Mhm. mais aussi avec ce que nous avons dans la tête. Mhm. et dans le cœur. Okay. c'est la générosité. Sénégal boo nee générosité. ñu xalaat poche du poche. générosité mooy li génn ci xol. nga xam ko mën ko yéene ko bokk. le dernier moom mooy. di remercier. fii sa fi invité sama kër la <laughs> parce que euh, le président. Manick. au niveau de MEDES. Mhm. jël na ma ma nekk présidente de la commission sociale. Mhm. ça c' est un facteur important sociale yàgg na ci yow pendant deux ans. ma nekk xale bu ndaw nekk foofu. Mhm. donc les mercredis du MEDES def naa ko ak moom ba taay mais boobu maa ngi door commencé jàngale. yëf yi métti dix si ma excusé mais jël naa ko pendant deux ans yoo xam ne. maa ko yore def sama kattan. donc fi sama kër la. am na loo xam ne laajuma la ko lan la woon benn kàddu. Mm-hmm. loo xam ne laajuma la ko te bu nga ko wax non ça va xanaa rek wala wër naa xanaa di di di ñaan rek di ñaan yàlla rek yàlla mm-hmm. suturaal ñu mm-hmm. ba nga xam ne vraiment li ñu nekk nii ñaaxaat itam ñaaxaat xam nga ñuy respecter les gestes barrières di respecter confinement bi parce que c'est un confinement qui ne dit pas son xam li ma la c'est un confirmant qui ne dit pas son mm-hmm. jii boo waree seet nit mm-hmm. na xam kooku yaa ngi dem di ko seeti ban heure nga war a jóg ban heure nga war a jóg et mm-hmm. puis est yaa ngi yaa ngi dem ñu ngi wax cas communautaire est newul ci moom est newul ci yow donc ñu respecté yooyu par respect ba mhm. pare mhm. Mhm. parce que am na yoo xam boo koy def se respect d'abord te nit boo bëggee jox la cër da jox sa bopp cër nag mooy supplier wu à ces règles pour que ñu mën a génn si pandémie bi ngeen ma may ma waxtaan ak waa réew mi waxtaan ak waa gox bi waxtaan ak sama gox waa HLM nga xam ne aw ma lu leen fay di ñaan yàlla yàlla mottali yéene yi wasalaam ñu may inspiration may wax rek kon am na solo <laughs> ma sosotee quoi amul problème sant ko gërëm ko ndax benn yoon laa ko woo téléphone mu nangul ma émission bi mënoon na bañ a ñàkk itam ci baaxaayam hmm. ñu daal di koy remercier bu baax hmm. remercier itam ñi jàppoon ci émission bi gërëm Adama Diallo moom mi nekkoon ci technique bi dañ leen di jox dig daje beneen dimaas ak beneen invité hmm. ci gox bi